asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi dañuy togg te ceebu jën bu xonq jën baa ngi ni waas naa ko rax ko ba set roof baa ngi nii ci dem mu ngi noonu bagage ya ngi noonu macha allah léegi moom lay dëbb ñëw daal di roof sama jën léegi jën baa ngi noonu léegi dëbb naa sama nokkos sama roof roof naa jën bi ba mu baax macha allah mu ngi noonu roof naa ko ba toog léegi teg naa sama diwlin mu ngi tàng diwlin baa ngi nii teg naa ko léegi damay ñëw daal di saaf jënni bu kii bi tàngee incha léegi suñu diwlin saaf na léegi bismillah damay saaf sama jeni saaf bu yem rek bu bañ a bu bañ a wow koŋ hmm. saaf bu yem am na ñoo xam ne bi moom moo leen gën a mais man sama waa kër jenu uh, jënu tëmbal bi ñoom daal nga waa saaf daal tuuti moom moo leen gën ko defee ma def loolu daal macha allah yéena ma gën a xam roof bi li ci dem mooy nokko euh, bi kii laa ci def euh, avant loolu ma won leen sama ndugg bi d'abord waaw ñaambi carotte supame kanja jaxatu patanse waaw loolu yëpp lañ ci am macha allah léegi ñu am euh, nokkos bi kaani salaat Eh, soble rof bi tamit tuuti persi bi moom lañ ci am noonu léegi bi tamaate loxati tamaate doom ma daggate eh, persi bi tamit ak tuuti soble moom lay jiital moom lay rosee eh, day am suul day am bëggëj géejj bi ak yéet bi léegi nokkos baa ngi noonu laaj beeg lépp daal machallah léegi ma continue ci kii ci liggéey bi day am marché douwaañe marché douane baa ngi noonu en tant que ma seppi jën yi léegi ma ñëw daal di sote loolu léegi ma ñëw daal di sote yi ma dagg noonu moom lay njëkk a sote moom lay njëkk a jiital mook tamaate bi ma daal di yëngal dama ko yëngal nii ba ba tamaate bi dog waaw dama ko yëngal ba tamaate bi dog li ma doon wax sànq ci roof bi pesi pesi laa ci def ak oño kaane salat ak kaane sufia ak eh, ki laaj mom laa def ma daal rof roof bi léegi leni gis ngeen mu ngi dag ndank ndank tamaate bi mu ngi dag ndank ndank dama koy baye ba ci kanam léegi ma ñëwaat xolaat ba tay ma yengal bala muy deur léegi dama koy ñew daal di eh, rosi dama koy ñew daal di rosi parce que xam ne gis nga tamate bi dag na ci affaire bi lépp da lépp daal mojji macha allah <laughs> léegi dama koy rusi incha allah léegi sama rusi bi dama koy def mu yem parce que parfumé lay sóor te parfumé ragaloon ndox bu bari maa ngi leen di jaajëfal bu baax baax baax kontaan ci abonné bu baax macha allah am na 500 abonné macha allah maa ngi leen di jaajëfal loolu moom nit yu bare bari la doomu aadama bare bari bari la macha allah waaye di ñaan mu yokk rek di ñaan abonné yokk rek fu muy gën a yokkoo rek gën a baax incha allah waaw léegi ñu daal di sote suñu ki daldi di sote suñu légumes yi uh, ci suñu ñurux bi daal incha allah au passage maa ngi nuyu sama benn xarit Fatima Ba moom tamit day toog comme man ni may toog ni macha allah yor na seen Fatima Ba euh, la cuisine sénégalaise macha allah moom tamit toog rek lay def man ngeen seet seeti euh, paasam bi am na solo léegi damay après bi ma ko tëjee lu yàgg euh, sama kii yaa ngi ni commencé ñor léegi dama sote dama jël nokkos bi ma la woon sànq moom laa dëbb sama gën laa ko dëbb tey ek sewo mako dema ka debbi sama genne noonu ba afe ma daldi ci jël tuuti daldi ko def ci legimi legi dama ñëw daldi damay ñëw sote samay jën a jën yaa ngi noonu dama koy sote après ma daldi tëj moom tamit mu def ay affaiream damay wàññi gaz bi mu baar bu baaxa baax baax baax ceeb daal bala mu gën nu mu gën a nu mu baaree rek gën a neex léegi def naa euh, def naa géej bi def naa tamit diet bi tamit waaw léegi dama koy tëj lu yàgg ñoo xoolaat waaw léegi gis ngeen macha allah te bàyyi naa ko fii lu yàgg yàgg léegi ñor na lépp ñor na macha allah léegi dama koy ñëw daal di seppi parce euh, que ma ñëw sóor waaw dama tay sama ceeb euh, à dama kaa tay à part boobu ma ko dama kaa tay à pour liggéey bi gën a gaaw léegi tay na sama ceeb legi li ni yëpp ñorna na gis nga damay def ndank bala muy tass parce que li yëpp ñorna na sha allah legi ma CP eh, li ni ma dal di sour sama ceeb waaw ceeb bu xonk ma sha allah ceebu bu jën bu xonk ma sha allah di leen jaajëfal bu baax baax baax comme ni ko waxee lepp yeen la lepp yeen la wa yéenay ya setan video yi yéenay ya ab yéen ya abonné macha eh, ñu ngi bàyyi xel ngeen ñu ngi bàyyi xel ci yéen bu baax baax baax di leen jaajëfal bu baax tamit macha en tout cas kontaan nañ lool lool lool lool ci ànd bi ngeen ànd ak ñun macha allah suñu eh, ñu ngi ñu ngi noonu di seppi léegi eh, gis nga ndànk-ndànk rek bañ mu tas bañ mu tas daal macha ñu ngi ñaan ñi concerté naa nag xool. parce que ñi nekk di seetaan ñi ëpp si ñuy seetaan abonné ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp nañ abonné ñoom ñëpp nañ abonné macha allah bu ko defee affaire bi day gën neex léegi seppi naa lépp seppi naa ndawal seppi naa tamit eh, kii yëpp léegi li ci des ñoru bi kese moo ci des léegi dañuy ñëw sàppali nokkos bi desoon sànq moom laa jël def ko ni moom laa ci eh, sote noonu léegi damay jël tamit benn mazi benn mazi laa jël moom tamit dama koy sàppale sama ceeb ah, waaw mu gën a neex daal macha allah mu am solo lool nag ceebu ceebu jën bi jaar yoon waaw léegi damaa ngi suur suur na après ma yokkaat ma ma soor damay soor lépp daal macha allah léegi soor naa lépp léegi damay def sama macédoine Macedowaa doang kenn kiyu ko kenn tay ko kenn baxalu ko lii nii ba bi kese mën na ko ñoral inshaallah léegi damay kii eh, eh, nii dama koy yëngal ni ba après ma tëj ko dama koy yëngal ni ko après moom dina ñor fii te du tas du def dara dina waaw dina ñor ñor bu yem inshallah dina ànd ak eh, ceeb bi inshallah mu ñor noonu léegi dina yëngal sama ceeb noonu après ma ko ma wàññi sama gaas bañ mu lakk léegi dama koy bàyyi dama koy tëj noonu bàyyi ko après ma ñëwaat ci kanam ma xool incha allah waaw léegi ñëwaat naa ci kanam bàyyi naa ko li yàgg ñëwaat gis ngeen jeeb bi nu mu mel muy euh, ñor ndànk-ndànk mais duma ko jeexi instant boobu waaye léegi mën naa ko jeexi léegi fi ne nii ceeb bi ñor na benn yoon laa ko jëfe waaw yoon laa ko jëf boobu moom euh, boobu filmé ko fekkoon na sama bébé bi di jooy waaye instant bi ceeb bi ñor na macha allah léegi daal yàkkal moom moo ci des ma yàkkee ba pare añ bi pare nag ñu daal di ko taaj noonu mu am solo lool nag allah léegi mu ngi nii ceeb bi ñor na dama kaa tëjaatoon mu pour mu gën a ñor daal waaye ñor na léegi macha allah dara desati ci tooyul kiirool gis nga macédoine bi ñor na ñor bu yem ànd ci ceeb bi mu ñor noonu léegi yàq na mbokk yi suñu añ baa noonu macha allah yuubu yaaba yépp ñu ngi <coughs> na solo lool nag <laughs> ceeb bi jaar na yoon neex na waaw daxar baa ngi moom tamit waaw ceeb bi am na suur am na lépp macha allah dara manqué wu ji